FM la rajo leader daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi bokk na ci luñ fi fas yéene yaatal eh, ñaar ci ay eh, eh, communautaire yoo xamante ne ni nag daal dinañu ko rek enregistré ci localité yu Géejawaay ak Derklé loolee nag bokk ci nag fukk ak juróom-ñaari cas yi nga xam ne réewub Sénégal daal dina ko am niki tey ci wàññi gi nga xam ne ministère de la santé daal dina ko fësal bu weesoo ñaari cas yooyu fukk ak juróom am nañ ko it ci ay cas contact euh, koor gi nag daanu ci sóobu te du mat euh, benn ayu bés jamono ju nga xamante ne ni euh, couvre feu dafa rek daal di am waral nag ba mbootaay mi ëmb imam ak prédicateur yu réew ba Sénégal di nag sàkku ñi nga xamante ne ni ñoo di nag askan wi ñu daal di rek xoolaat li nga xamante ne kon kilifa yi ñu daal di xoolaat anam gën amale lii di couvre feu bile ci biir xibaar yi nag daanu leen rek teewlu li sababu bi lépp sàkkute fa ci ñaareelu pàcc bi nag benn ponk lay doon di xibaaru biti réew ñu fas yéene ko nag daal di jagleel tolluwaay yupp nag jàngoroy coronavirus ci àdduna wërngal këpp loolee ci ñaare bi pàcc lay doon bu ngeen teewloo te taataan ñu sóoboog yéen ci yaatal. Chérif Diallo moo nekk ci xarale gi mbokk yi dalee nag jàmm dañuy dooree jotaayu xibaar yi ak nag taxaw seetlu gi nga xam ne bés bu set ministère de la santé da koy amal ci tolluwaayu coronavirus ci Sénégal tey fukk ak juróom-ñaari cas la ñu daal di wàññi ñaar ci ay cas communautaire euh, bawoo ca fii di Derklé ak it Guédiawaye lu toll ci fukk ak juróom ci ay cas contact directrice générale bu santé publique di Marie Thérèse euh, Ngom Ndiaye moom moo rek daal di euh, fësal li nga xamante ne ni moo di xibaar bu ni mel. ay kàddoom ñu teewlu ko. kon mu mel ni nag élément kon ñu teewlu ki nga xamante ne moo di docteur Marie-Thérèse Marie kon Xemes Ngom Ndiaye jiite euh, santé publique. ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett yi nga xamante ne seet nañ ko fukk ak juróom-ñaar dellusi nañ ak doomu jàngoro ji ci yooyu fukk ak juróom moom la wax cas contact ci yooyu tamit ñaari cas. ñoom la ñuy wax transmission communautaire maanaam mooy ñi nga xamante ne kenn xamul kan moo leen ko wàll su ñi nga xamante ne feebaru nañ juróom-ñeent ci ñoom bañ lañ saytoo gis nañ ni amatuñu doomu jàngoro ji wër nañu ñu ngi leen di dolli di tere ñuy nuyoo ak loxo di raxas seen loxo yi ak saabu ak ndox di col masque ci diggante ñaari nit ñuy xàll lu toll ak benn mètre waaye tamit su ñu demee bay bugg a tisooli wala ñuy sakkat ñu jël musuwaar te suñu paree ñu sànni ko ci mbalit mi bu ñu amul musuwaar ñu sakkat ci seen diggante conc yi juróom-ñaari doomu aadama yi amee coronavirus te réew Sénégal daal di koy wàññi ni ki tey juróom-benn ca diwaanu Ziguinchor la ñu bawoo mu ñuy ay cas yu doomu aadama bi nga xamante ne ni moom moo ñàkk bakkanam ci coronavirus ni ki alxames bi ñu weesu foofee diwaanu Ziguinchor ay atam tolloon ci juróom-benn fukk ak ñett fi mu toll nii nag ñi nga xamante ne ñoo di cas contact yooyu lay ñu leen internet ca centre de traitement bi nga xamante ne ni moom la ñu jagleel wàllub fajum coronavirus foofee Ziguinchor ngir uh, jàmmarloo ak li nga xamante ne moo di cas communautaire yi gën a law ci Sénégal municipalité bu Grand Yoff daal dina rek uh, digle ñuy takk li nga xamante ne moo di masque ci marché ya nekk ca commune ba loolee nag dooree ko li nga xamante ne ni moo di altine képp kuy duggati ci marché ba di jaay wala di jënd dangaa war a rek takk masque ba tax na nag ñi nga xamante ne ñoo di mairie ba daanu fa samp seen ay nit ngir ñu saytu lu ni mel maire bu diwaanu Grand Yoff di ma Diop la lañuy teewloog Alassane Balde maintenant ñu fexe maintenant ba commerçant yëpp yëpp takk ay masques. altine bi dinañ jox marché Grand Yoff 1000 masques jox marché Arafat cent masques pour commerçant yëpp takk masque. benn ñaareel bi mooy marché Grand Yoff am na am na quinze bunt. Arafat am na 14 bunt dañu leen wax ku nekk si ñoom nañu wàññi seen bunt yi. araf marché Grand Yoff nañu nañu ubbi sept port marché Arafat aussi ubbi sept portes tëj juróom-ñaari bunt yi dina permettre ñu mën a filtrer entrée yi. ba ku takkul masque doo dugg si biir marché mu nekkoon ki nga xamante ne moo di Madiop Diop jiite nag euh, commune bu diwaanub euh, Grand Yoff médecin chef bu sami municipal moom daal dina rek sàkku ci askan wi ñu daal di wàccoo ak matuwaay yi nga xamante ne ni daal dinañ leen ko digal ngir nag moytandiku euh, wàllante gi rawatina lii di cas communautaire yi suñu sukkandiku ci docteur si di Gueye fi mu toll ni ku ci nekk war ngaa rek jël sa ay matuwaay ba moytandiku bi lépp jàngoro moom docteur bi la ñuy teewloo ko sunu ndaw Alassane Balde communautaire mais waxtu bi du waxu tiitaange mais waxtu prise de conscience la maanaam nit ñi xam ni lii du ay caaxaan lii dañu war a xool ku nekk sa xel sa responsabilité individuelle nga xool ni tey am na loo xam ni boo ko defee yaa ngi exposé sa moroom te loolu du yoon te je pense que tey mesures yi fi nii. am jafeegul am na réew yoo xam ni gën na jafe nit ñi duñu génn seen kër dañ leen confiner totalement donc ñun c'est risque que journée bi ñu ngi dem ak dikk mais ci loolu nañu respecter consignes yi nga xam ne joxe nañ ko. ñu woy ba tey di wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne ni jàngoroy coronavirus mu ngi koy teg askan wi rawatina secteur bi yëngu ci wàllu bu dem ak dikk ci tali bi syndicat national bu transporteur yooyu lay bootu ci confédération nationale bi ëmb liggéeykatu Sénégal di CNTS ñoom ñi ngi woote rek ak wallu suñu sukkandikoo ci seenu euh, président di Pierre Mbakhane Gomis te euh, jiite leen fële sa section Thiès gis na ne daal ñi yëngu ci wàllu woowule jamono ji lot nañu amatuñu génn koom gu ñu dugal ci seeni poos tax nag ñuy sàkku ci nguur gi mu daal di leen rek taxawu ci lu soxal chauffeur si nga xamante ne dañoo taggatémbe ci diwaan yi daal dina sàkku nag nguur gi. mu mën leen a may ñu daal di ñëw euh, ci seen ay njaboot ngir mën fi rek umeekoor kadduy Pierre Mbakhane Gomis la ñuy teewloog Younousa Baldé. mbir mi nag ci Sénégal yëpp ak liggéeykat yëpp waaye dafa gën a nettee nag ñi nga xam ne ñoo doon yëngu ci gaaru ceer yi muy transporteur moom oto bi muy chauffeur bi ko doon dawal muy apprenti bi ci am nag muy coxeur bi muy ñi doon jaay ci gaaru ceer yi doon jigéen wala góor doon la jafe-jafe boo xam ne lu ma weere ngi nii ñooñu ngi toog seen i kër transport urbain bi xëy na sax lu bon bon ñoom a fanweer yooyu la yëbal sa juróom tabanoo ko bañ kon xam nga ne problème am na li ñu bëgg léegi mooy ginnaaw bu ñu nangoo dogalu bi président jël pour aar askanam ci feebar bii mu ngi koy wax ne nag ndimbal li nag gaaw ñu koy ñaan wallu bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw ci ndimbal lu jëm ci ñi nga xam ne ñooy transporteur yooyu toog gaara seen oto di ko xool chauffeur yooyu toog di xool gaara seen oto di ko xool xam nga euh, dafa nekk loo xam lu délicat la parce que comme xam nga yëpp kenn ku ne fa nga nekk la fa ci si nga doon liggéey mënu soo

ñu àddoog yéen wutali bay dëkk di ab gox boo xamante ne limuk doomu aadama ya fay yeewoo daal dina takku loolu gox boobee nekk ca diwaat Mbuur mën nañoo wax ne askan wa ay jafe-jafe la ñuy dund rawatina jamono ji nga xamante ne ni Sénégal dafay rek jànkonteeg mbas mi gox boobe amul rek ndox rawatina li nga xamante ne ni moo di courant bu weesoo loolu it amuñu ay bërëbu fajekaay bay dëkk mi daal di soppiw turam daal di koy duppee sant yàlla gis nañ ne daal dañu leen a beddi ci doxalinu ko réew rawatina nag ci suq suqaliku gu mucc ay yëpp yaatal geeg Papa Dieye quartier bi ñu daan wax bay dëkk te mu tudd léegi sant yàlla féppay metti waaye njàkkum ndox mi moo gën a jaaxal askanu fa dëkk ci jamono jii ñuy wax coronavirus nga xam ni cat la laaj ñàkkum courant it lu leen jaaxal la ñu dégg ci ci biir quartier bi six ci borne fontaine yi la ñuy la ñuy fanaan robinet yi day tëj te day tëj guddi du tëj bëccëg sonn nañ tor bi feebar bi dafa laaj ndox ak set amuñu ndox amuñ courant courant bi gis na ba dañ koo lonk. courant bi tamit amuñu ay poto yu doy. lii ngay gis ni yëpp ay fil la ñu jokkalante te boo demee ci biir quartier bi am na foo xam ñu sondeel la ñuy taal ba fii ñu toll nii. ñu ngi bëgg a tuskari. loo fa dëkkee nag balaa ñuy faju dañuy sonn lool. léegi amuñ hôpital. quinze mille habitants yi ñu doon amuñu poste de santé ci suñu biir. ñu dëkk bee dëkk nag ñi ci ëpp amuñu doole te dañoo gis ni kenn faalewu leen ba ci dund gi ñuy séddale gisuñu ci seen bopp. fii ci biir quartier bi gisuñu kenn ku fi dugal dara di ko séddale ñu fi dëkk ñu am doole bari mu ñu fàttali ñu daal ñu séddale ba boole ñu ci. ñu ngi woon nag kilifa yi réew mi ñu jàppale leen Pape Dieye Baye dëkk Zik FM. xibaaru bitim réew. ñu yegseet ci yéen ci ñaareelu pàccu xibaar yi daal di koy jagleel biti réew waaye tolluwaayu corona coronavirus lu toll nag ci ñaari million ak ñetti téeméer ak fanweeri junni doomu aadama yu tafal téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ñoo amee jàngoro ji ci àdduna wërngal këpp lu toll nag ci téeméer ak juróom benn fukki junni yu tafal juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar la ci seen bakkan des limuk doomu aadama yi koy amee ñi ngi wëy di yokku mbootaay mi ñu dénk li yëngu ci wàllu wér yaram ci àdduna wërngal wërngal këpp di OMS daal dina amuk eh, ci bu yenn ci ay réew dakkalee tëju gi eh, lii di faat bakkan yi dina gën a yokku eh, ci li nga xamante ne moo di Covid 19 taxaw seetlu geeg Fatoumata Diop. ci Afrique épidémie bu coronavirus bi mu ngi wéy di développé wu Afrique du Sud am na lu toll ci ñetti ju nekk fanweer ak ñeenti ay cas yu ñu recensé ni ki tey jii ci dimanche ji juróom fukk ak ñaari doomi aadama daal di ciy ñàkk seen bakkan Kinshasa nekk ville bi nga xamante ne moom moo gën a rëy ci Afrique francophone dina nag génne li nga xamante ne moom moo di déconfinement bi eh, ci centre affaires yi ak pouvoir bi Maroc nag mu ngi wéyal moom tam li nga xamante moom moo di rek confinement bi ñëpp toog seen i ay kër eh, ba ñaar fukki fan ci weeru mai bii Algérie moo ëpp ci ay doomi aadama yi ñàkk seen bakkan ci feebaru Covid 19 gi confinement bi nag dinañ ko wéyal ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru ci juróom-ñaar téeméeri junni ak fanweer ak juróom ci ay cas yu ñu New York nag la pandémie a téeméeri ju nekk fukk ak benn ci ay cas yu ñu recensé am nañ tamit lu ëpp fukki ju nekk juróom-ñeent ci ay doomi aadama yu ñàkk seen bakken waral nag Emmanuel Macron daal di ne dinañ wëyal confinement bi ba fukki fan benn ci weeru mai ca Italie nag ñu ngi wëyal tam seen confinement bi ba ñetti fan ci weeru mai tamit ubbite l'école yi ca weeru septembre it lañ ko namm amal ca Espagne yi ñu ngi wàññeeku it mu nekk ñaareelu dëkk ci àddina bi nag bi ëppale ci ay doomi aadama yu ñàkk seen bakken naka noonu ci ñi am bile feebar ndax buñ ko xayma ëpp na ci téeméeri ju nekk juróom-ñeent fukk ak benn réewum Iran it daal di nañoo dépassé baaru juróomi junni ci ay doomi aadama yi ñàkk seen bakken Allemagne nag fu ni déclaré nañ ne épidémie bi ñu ngi koy contrôler te it ñu ngi koy gérer ni mu waree ca nag fu mu ni ñoom ñu ngay tiit nag amaat ñaareelu vague ci ay cas yu yees yu ñu ndax am nañ lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay doomi aadama yu am bile feebar mu nekk ay étudiant ak ay liggéey liggéeykatu chinois yoo xamante ne dañoo bokkoon ci benn bus ca Russie la ñuy jeexale Vladimir Poutine nee na nag weeru avril bi dañu koy chômer te it dinañ leen fay li leen di seeni ay salaire jërëjëf Fatoumata Diop mu doonoon taxaw seetlu ci nag jàngoroy coronavirus ci àdduna wërngal këpp pàcc boobe sax ma moo ndar képp jotaayu xibaar yi jaajëfal bu baax Chérif Diallo mi nekkoon ci xarale gi di leen jaajëfal yéen mbokk auditeurs yi ci teewlu gi Abdoul Aziz Souda Baax ci réalisation